Nous ñu wax euh, suñu inventaire bi euh, encouragé ko félicité ko euh, li ñu ne africain yi bëgg def rek war nañ complexe vis-à-vis de qui que ce soit moom nga wane fii ku nekk fa nga nekk war na voilà la laaj rek la laaj xel problème yi baña xaar rek toujours gouvernement gouvernement xam nga kii gouvernement dugalu ci dara mm, ci sa xelu bopp ak sa xalaatu bopp la demee waaye nag après war nañ la mën a jàppale mm, mm, voilà ni nga créé benn oto bu mel nii ñu mën cee am voilà ay milliers ki milliers ki milliers dem ba kenn dootul importer oto euh, feneen di defar suñuy oto bopp kon nag ñu ngi lay féliciter li inspiration la aussi pour suñu jeunesse bi voilà espoir la aussi euh, ñu xam ne seen avenir fii la nekk au Sénégal nekkul feneen voilà da ngay gis sax ñu jógee bitim réew di ñëw fii Eh, kon ni nga def ni vraiment exemple bu am solo la moo tax tey nga ñëw au niveau du conseil ñu sawar eh, vraiment lancer message boobu à la jeunesse surtout bu ñu gisee eh, les cas douloureux voilà de euh, pour bëgg a tekki ji à l'étranger parce que voilà mën nañ tekki fii aussi quoi ginnaaw bu ñu voilà jaalee famille yi nga xam ne ñoo lorle eh, wax jeunesse, il faut rester au Sénégal. Il faut croire en soi-même, il faut croire au pays. xamné voilà, le Sénégal, c'est les jeunes. Le Sénégal de jeune. Nous avons luñ ci mëna def pour jappalé len niko président de la République ah ñu Nous len ci euh def na un message que mom lay mëss di ça y est, ak les jeunes. Eh, moom ci bopam fi la fi la maggé fi la juddo fi la jangé ba nekk président de la république voilà kon soxlawul ñuy jéggaani di wuti leneen